jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel émission bu mag bii di seen xalaat ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen a abonné ne seen mbégte lekk mooy suñu yitte leen fàtte mukk commentaire yi lépp lu ngeen commentaire ànd nañ ci ndax ki la seetaan mënut a commentaire waaye bu leen fàtte mukk baaraam bu baax nag kilifa yi di leen ñaanal yàgg ku wér waaye duñu fàtte mukk waa bitim réew si ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñun mbokk yi nag émission bii di seen xalaat ñëwaat na ànd ak euh, tey jii jëmm joo xamante ni dégg ngeen turam tamit mu bokkoon ci takk der yoo xamante ni takk der yi Sénégal yi ci la bokkoon ñu raje ko léegi bokkatu ci waaye léegi mu ngi ci langue politique bi kooku lañ fa yéene dalal tey ji waxtaan ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu waaye dinañ waxtaan ak moom ci kees dinañ waxtaan ak moom ci raje bi ñu ko raje dinañ waxtaan ak moom it ñi nga xamante ni raje nañ leen ak li nga xamante ni xew na fi ba ci décret bi ak nervi yi loolu lépp incha allahu rabbi dinañ ci waxtaan ak moom incha allahu rabbi waaye soxna bu laataa ñuy am waxtaan woowu dañuy dem ànd ji ak Baye Cheikh Fall buñ jógee ci Baye Cheikh Fall doog am waxtaan woowu bi kon ki ñu dalal tey jii mi ngi tudd Ousseynou Fall di Capora moom la ñu fas yéene àndal tey waaye soxna bu di jaajëfal bu baax Souleymane Ba mu nga nekk fee Nouakchott Mourtani foofa la nekk moom a yónnee lonet yi nga xamante ni takk naa ko tey jii macha allah Souleymane ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàgg ak wér incha allah Souleymane jërëjëf kontaan naa ci yow soxna bu nañ seeti Baye Cheikh Fall ñëw ñu ànd ak Ousseynou Fall. Serigne Cheikh Fall borom sifa un ngeen di àndal kenn dootu ko laajte ci biir réew mi ak ci biti réew Sénégal Afrique ba Europe ñëpp garabu jabetam yi la ñuy waxtaanee Serigne Cheikh borom boo amee jabet demal hôpital nga xool sa jabet fan la toll ngir del si ñu jëflante cëy bu ñu paree yéen ñi am jabet bu leen tànqamlu moo mën ci jabet yéen ñi yor ndoxum siti na seen xel dal mi ngi ci garab yu doy waar lépp lu jëm ci hémorroïde ñu yor xeetu gémmiñ te feebar yóbbee leen ko dawal ngeen seeti Serigne Cheikh Fall yow mi am feebaru biir lekk mbaab liggéey mbaalu bon la ko dawal nga seeti Serigne Cheikh Fall ndax foofu la yam Serigne Cheikh Fall ni ma bàyyi naa xel ñi nga xam ne ñoo yor seeni soxna te mënatuñu ci ñoom dara maanaam ñi tële wala sax ñi néew kàttan Serigne Cheikh Fall mi ngi ceeg lu doy waar mille force attee boo xam ne loo lekk lu mu bari bari bari tàngalal rek ndox nga def ci dalay digérer lu gaaw a gaaw a gaaw yow mi am ballonnement seere lépp lu jëm ci listixaar ak sangatu ubbeeku bayre ngeen mën a jokkoo moom ci ay numéro téléphone am yooyu di affiché ci barre écran bi Serigne Cheikh Fall moo leen di may seen xalaat salaamaaleykum wa rahmatullah waaw nangeen def waay sëñ Assane. Ousseynou Fall ñu ngi ziar. yéen a ngi ci rek. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. naka yi tey. sant bu baax a baax. yaa ngi en direct seen bu mag bi CCB. tey yaay ah. sunu gan. waaw ma waaw maay maay seen gan waaw. waa tey yaay sunu gan ñu fa yéene waxtaan waxtaanu yaatu. Mm-hmm. Euh, bokk na si yow si sa bopp ak sa taxawaay ci réew mi ak it euh, fi nga bokkoon te jëlee la fa la fa jële bokk na si it mm-hmm. nervi yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak président Macky Sall waaye bokk na si président Macky Sall ñëw gi mu war a ñëw kees. Mm-hmm. waaye bokk na si li nga xamante ni amoon na si ensemble ak lépp daal loo xamant ni soxal na réew mi dinañ ci waxtaan incha allah ginnaaw bañ la bàyyee nga nuyoo ba noppi Ousseynou. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Thiès Sénégal nuyu waa àdduna diaspora bi di rafetlu ko taxawaay ak ñi nga ànd ak liggéey bu am solo bi ngeen def waaw man je me présente caporal Ousseynou Fall maa nekk njiitu mouvement bi ñuy wax génération patriote ngir Sénégal raw basé et domicilié à Thiès maa ngi nuyu di leen sant. yaa ngi nii duñu sant ndax mën nañoo xam kan mooy Ousseynou Fall si lu mu nekkoon. waaw man su ma comme ni ma ko waxee rek je suis simple. bi ma amee ba ma ganasee àdduna ba ma amee dix neuf ans ci laa engagé wu volontaire dem armée nekk fa nag ak nekkin bu am solo dem dem Bango nekk contingent deux mille cinq une def formation quatre mois ñu affecté ma à Tamba ma demee Tamba def formation commando a Patasi ñu bàyyi ma Tamba ma def fa Tamba cinq ans Tamba laa jógee def beneen stage pour mën a nekk gradé ci armée en 2009 ci laa dem nekk de la trente septième promotion di formé mooy grade caporal mooy ñoo nga xam ñooy formé militaire yëpp képp koo xamante ne mos ngaa jaar bango sol tenue caporal moo la formé kon caporal képp koo xamante ne day sol rek moom moo la formé lu ci ëpp boobu surtout boo fekkee da ngaa jaarul côté euh, euh, élève officier wala élève sous-officier caporal boo ko déggee mooy formateur mm-hmm. j'ai fait la les missions des Nations Unies def naa Casamance am naa cursus bu baax am naa CV bu baax parce que xeexal naa sama réew def naa opération yi bëree bëri euh, xeexal sama réew ci Casamance formé quatre mille militaires ñeenti junni militaires jaar nañ sama loxo bi tey ay officiers ñu ngi ci ay sous-officiers ñu ngi ci ay gendarmes ñu ngi ci ay douaniers ay ñëpp ñoo xamante ne bari nañ ñu ngi ci ñi nga xamante ne yoroon naa lañ sa formation ba léegi nag boo jógee ci loolu. am ay jafe-jafe ak armée ci laa ñëw nag dugg ci langue politique bi dugg ci langue politique bi duggin boo xamante ne ni mu leer ma ni lépp loo xamante ne maa ngi koy xeex maa ngi ci jiital askanu Sénégal waaye maa ngi ci jiital les forces de défense et de sécurité mooy ñëpp ñuy sol tenue sama xeex bi ñoom laa jiital en grosso modo daal loolu la mën a tënkal ci kan mooy caporal Ousseynou Fall. am na solo Ousseynou Fall xam naa hmm. sama bi yokkal ma tuuti rek mais Ousseynou. waaw. Euh, jafe-jafe yi nga am lan la. waa damaa nekkoon armée hmm. di former ay militaires. Hmm. li ñuy wax FQA. formation qualification à une arme. Hmm. mooy boo génnee Bango. formation boobu ngay jëkk a def pour ñu pour ñu pour ñu jox la benn arme boo xam te ne moom mooy sa arme. ba may yore ñooñu di leen forme nag. ñu dem ba le vingt cinq janvier. c'est le contingent deux mille quatorze trois. Euh, regroupant le vingt deuxième Beera. le deuxième BAT. le PMS et le douzième bataillon mooy zone Saint-Louis ma yóbbu leen à Dodji ba mën a yóbbee à Dodji ci cours de formation benn guddi heure bi ay vingt heures trente cinq quarante ci laa mbëkk benn bant. Hmm. bant bi tuur sama bët bi. Hmm. bi bant bi tuuree sama bët bi. Hmm. ñoom armée ñu war maa évacuer wuñ ma. foofu laa fanaan. j'ai passé la nuit à ji moo tax ma xam ni. bu doon doomu président. wala muy doomu officier bu mag. Hmm. hélicoptère lañ koy jox. Hmm. man la lendemain. sa hmm. ngoon ga. lañ ma évacué. évacué ma ci camion. 10 17 lañ ma évacué. taxaw nan Linguère taxaw nan Daara taxaw nan Louga ba Saint-Louis. ci koo xamante ne nii bëtam dafa tuuru ba deret deret ji wër bëtam. bët bi gisatul man tamit ànd sama ngor ànd sama jom. xam ne gaañu naa ba pare. Hmm. gaañu tamit taxul ma hmm. war a nekk di jooy. Hmm. walla ma yaafus ma ne dérét comme que yàlla def na ma gaañu naa ànd ak sama ngor. ñu maa ngi àgg hôpital principal. le vingt sept janvier. ci ku gaañu la vingt cinq janvier. le vingt huit la ñuy doog a def opération sama bët bi. kon def naa trois jours yoo xamante ne nii. kenn fajuma kenn defaluma benn soin. kenn amul benn. Euh, euh, euh, intervention chirurgicale bu ñu def. Mm-hmm. man dama wax ne yeex gën ma yeex a toppandoo toppatoowee. Mm-hmm. ak négligence bi ñu am ci man. Mm-hmm. moo tax ma nekk benn bët tey. ma nekk benn bët tey. waaw loolu am na solo waa léegi yow yaa ngi liggéey si armée bi ba léegi wala liggéeyatoo si. dàq nañ ma ci armée. lu tax ñu dàq la man sa bët bi tuuru. man bët bi tuuru moo ko occasionné. ah kon affaire boo si nekkee booy gaañoo dañ lay dàq. parce que man niñ ma dàqee. damaa dem principal nekk ci ay rendez ñoom seen bopp. Hmm. ñoo ma jox këyit gu leer nañ hmm. na ma demal faju ji hôpital. Hmm. ma dem faj ji hôpital benn commandant ñëw sama ginnaaw bu tudd Daouda Balde. ñëw rek porté ma déserteur. ma ñëw di laaj samay droit ki yor suñu droit yi mooy OD bi na ma noo yow dañ laa porté déserteur. commandant bi réquisitionné na sa sa sa sa sa droit yi. cela veut dire mooy sama état du Sénégal viré na ma sama xaalis. Mm. mais commandant bi jël na ko bëgg ko def ci poosam. Mm. ma ne ko ñett loolu du mu saam. Mm. ca laa jugee Dakar. dem ba Saint-Louis fekk ko fa. dem ci ODE officier de détail bi kooku intendance la bokk mooy yor lépp luy wàllum finance. ma ne ko mon argent. sama xaalis laa ñëw jël. mu ne ma commandant bi neen ko réquisition demal ci moom. ma mhm. dem ba ci commandant présenté wu. Mhm. expliqué ko ne ko oo oh, dee neen yaa réquisitionné sama kii parce que dama porté déserteur. Mhm. mu ne ma je l'ai jamais dit. mosuma ko rek oo oh, dee génn ne ko yaa ko wax. commandant bi jël na ma foofu parce que dafa wax ne ma du ma la fay. parce que dana oo oh, dee trop mu ngi ci liste bi fay ko. mais bu fin du mois bu liggéeyul nga dagg ko ko. ma ne ko yow moo commandant munoo maa dagg parce que ki lay fay. yow man moo may fay. ci la indi armée. solo la tamit moo may indi armée. solo ma tëni. kon mënoo dagg sama benn droit. te je dans les règles. mu mer ñëkk jël ma yóbbu ma gendarmerie. ba mu ma yóbboo gendarmerie devant le capitaine Faye de la gendarmerie. Hmm. et beaucoup de témoins. j'ai eu raison sur le commandant. Hmm. ne ko kii kii bi mu wane mu ngi nii. c'est très clair et net. Hmm. kon man damaa gëm ni bañ nga ma doon bañ ci armée. moo tax ñu bogo bogo ma. ñàq ma comme ab xaj tànn ma ca biti. loolu sa loolu loolu loolu lañ ma def. loolu am na solo waaye nag euh, maanaam jox nañ la ndàmpaay daal lu takku. dërëm joxuñu ma ko. joxuñu la dara si ndàmpaay. pension sax mënuma ko am. am na solo koo xamante ni dafa dem ca hôpital. Hmm. booy dugg armée da ngay apt. Hmm. Hmm, da ngay def dugg armée da ngay def ñett visite médicale. kon booy génn armée da war a def visite médicale. am ma def visite médicale. dem médecin militaire bi. daan kii il est pour quelconque libération. Hmm. cela veut dire mooy caporal Ousseynou Fall mii. Hmm. bët bi dafa tuuru yàqu ci armée. Hmm. kenn mënu koo génne ci armée. tant que demul commission de réforme. ma jël këyit googu. comme que xam naa ñi ma am am affaire. ma jël këyit googu photocopier ko. ñoom sax def na fa yàlla def na photocopie laa lañ jox. comme que chef yi ñoo defoon ñoom ay pression. ne leen kii dàq leen ko suba suba bu mu fanaan ci armée. ma jox leen photocopie te original ñu ne ma kon léegi tu es maintenu par raison de santé. durant six mhm. mois renouvelable. Mhm. bind ñu ko ci kayit de. Mhm. mais parole d'un officier. vaut mieux qu'un décret présidentiel. un officier armé bu waxee ne lii la. moo gën a dëgër sax président bu signé décret. am na solo Ousseynou. ah ma ne ko kon waaw. kon est-ce que tiituñu si kii nga xamante ni dafa dafa nekkoon si doxu ñaxte bi loxo ba dagg mu yor kuuñ. ak ki nga xamante ni maam loxo bi moom moom lañ dagg daal est-ce que kooku tiituñu si ëllëgam kon ñu dàq ko wala kooku day continuer di fi nekk wala. non kooku c'est un la paysanne. sama grand la benn koñ fii. waaw Mouhamed Ka. Mouhamed Ka waaw maa ngi yàlla may ko gudd fan. amiin amiin amiin. te moom. Hmm. ku sénégalais war a sargal la. Hmm, hmm. ndax bu yaafu son élément yi nekkoon ci oto bi yëpp. ñëppay làq ñëppay génn àdduna. moo tax il mu mu am fit. moom baa mi ngi jël muy ko ji duñ ko dàq laa. non duñ ko génne dañ koy affecté ci yeneen corps. si hmm, man nag loolu lañ waroon def. ah yow dañ naa man dañ ma waroon yóbbu beneen bureau. am na solo ki ñu nag moom buñ ko mënul buñ ko mënul. ñu jël ma fay ma samay droit ma dem toog. mais loolu dañ ko bañ. ñu njëkkante ak heure bi léegi keneen ki ñu rajo moom noo ko gisee. kan ci. ki ñu dàq ki nga xamante ni si mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr moo yoroon dossier bi. waaye kooku dañ koo tooñ. Hmm. capitaine na Omar Touré. Hmm. il a sauvé l'honneur de la gendarmerie. Hmm. dañ koo tooñ. parce que gendarmerie ak police dañ leen bëgg a instrumentaliser. Hmm. jël ñoom ñi nga xam te ne c'est des procureurs ay ay ministre la justice ñoom ñu bëgg jël kàddu ci kaw seen kaw officier yoo xam te ni. xam dañoo ils ont ils ont juré. ils ont prêté le serment. ne dinañ défendre askanu Sénégal. ñoom ñu jël ko dàqati sax te il a osé dire la vérité. il a la vérité. waaw mani problème capitaine bi. léegi daal mbirum policier ak gendarme ak douanier ak yëpp nañ ko lem teg ko ne loolu mën a dugal si politique bi ba nga ba nga ñëw foofu kees di politique. waaw politique xam lu ma ci dugal. Hmm. dama ne man niñ ma dàqee ci armée. Hmm. dootuma yaafoo di nangu. Hmm. ñuy dàq keneen noonu ci armée. kon dinaa xeex ba décision yi nga xamante ne fa la ñuy mën a doxalee armée ba jox leen seen ay droit veuve yi ñu yokk seen i pension. militaires yi. en activité ñu yokk seen i salaire hmm. ñu yokk seen i pension hmm. defar une armée constructive fexe ba armée bi bokk ci armée yu mag yi hmm. loolu tax ma dugg ci politique am na solo foofu nga nekk di kees président Macky Sall ma ngi fay ñëw suba insha allah nan ngeen ko fas yéenee teertoo waaw ñun moom commencé nañ parce que man tey quatorze heures la waa section de recherche waa waa waa brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie capitaine bi woo ma téléphone ne ma gars yi dañ laa convoqué ma ne ko indil ma convocation. Mhm. mu ne ma dinaa la envoyé waa section waa brigade de recherche. Mhm. ma jekk ba saa gars yi woo ma téléphone ne ma ñu ngi sa koñ foo nekk ma tegtal leen sama kër. Mhm. ñu ñëw jàpp ma yóbbu ma. kañ tey. quinze tey quinze heures trente. ba dix neuf heures maa ngi foofu. xam nga ñu jàpp ma ñu ne ma. mooy benn ay poste yooyu ñuy def di daan ne Thiès dit non wala Thiès tous en rouge. devant le président de la république. loolu moo tax ñu jàpp ma tey. auditionné ma quatre heures de temps. Mhm. mais mënuñu maa jaar fenn parce que j'étais dans les légalités. am na solo sànq lañ ma bàyyi. sànq lañ la bàyyi mais Ousseynou Fall. Hmm. bu fekkee ne ku demee ni ab président réew mi ngi ñëw si benn dëkk. waaw am na ñu nekk si dëkk ba te ànduñu ak moom. waaw ce que ñoom mënuñoo toog seen i kër wala ñu xool beneen doxalin bu dut baare fenn wala yuuxoo wala doo fi aw wala daal saboote daal ba tax nerf yi di dal ci kaw ñooñu xeex di am est ce que noonu la war a demee. waaw xanaa président moo ñu ñu jiite de. ñun kay ñoo ko moom. ñun ñoo ko ñun ñoo koy fay. ah moo tax daal fal di hmm. ko fay. daal hmm. yi muy sol ñoo ko jënd. Hmm. costume bi muy sol ko jënd jox ko armée jox ko sama ko xër jox ko kër jox ko moo tax daal ngeen di ruube. moo tax du ruube wu ñu de ñun ay responsable lañ. kon lan ngeen di def noonu naan fii du fi jaar ak dégâts Macky dégâts yooyu. à l'heure que je vous parle. fépp boo xamante ne tali Thiès la ñu koy takk de drapeaux rouges. parce que Macky Sall lam ñu diggoon defu ko. Hmm. diggoon nañu plus de quatre cent milliards. diggoon nañu fi NSS da koy yëkkati. Hmm. diggoon nañu fi semaine d'affaires da koy yëkkati. Hmm. mais ak l'effet mburoog soow. moo tax ñu yaakaar ne keesuwaay dañoo ñàkk. waaw mburoog soow yéen Idrissa Seck moo nekk kees moo ko yilif yàlla dogal président Macky Sall jël na ko dugal ko ci gouvernement bi xanaa kay warut leen dara warut leen a metti dama ne ah kay. parce que ñun ñun du ñu ànd ak traite. parce que munoo ne kenn fasatuma yéene ñu fal ma ci ay décret. Hmm. nga xëy suba ñu fal la noppi la hmm. nga jaay goru Cees. te li si gën a garaaw lan la. Hmm. mooy moom ngi nekk moom. mu ngi nekk président conseil économique social et environnemental. ba pare bëgg fa jógee nekk président conseil départemental. am ñaari salaire ci kaw sénégalais yi. Idriss Seck ñaari salaire lay fayeeku ci kaw sénégalais yi. waaw fu mu teg loolu. ah loolu de doy na waar moom. Thiès dit non à ah, Idrissa Seck Thiès dit non à la venue de Macky Sall ñun nag dinañ manifester suba. Hmm. dinañ ko accueillir dinañ am ngeen autorisation. dama ne dinañ ko accueillir comme ni ko ñëpp di. accueillir mais en rouge. am ngeen autorisation pour manifester. non ñeneen ñi amuñu autorisation. ba xam ngeen mbirum terrorisme moom wax si mbirum terrorisme yi. dama ne. Hmm. xam nga la mooy terrorisme. Hmm. mooy quelqu'un qui sème la terreur. et que Macky il sème la terre fu mu jaar ak Khalifa Sall fu mu jaar ak Karim Wade fu mu bëggoon a jaar ak Ousmane Sonko fu mu jaar ak sunu pétrole sunu gaz ana Guy Marius Sagna ana Karim Xrum Xax ana ñeen ak ñeen ak ñeen. Hmm. Macky Sall njaayam doole googu muy def mooy terrorisme. waaw léegi am na solo waxtu wi jot na. léegi hmm. sa patron Bougane ba mu nga tudd Bougane lu ko def sa patron. waaw Bougane sama xarit la. Hmm. mu am vision Sénégal. dama gëm vision am nag. war na fi ñëw Thiès suba. suba daa war a ñëw fan. ñëw dañuy président bi. Bougane day ñëw kees. day ñëw kees la benn la. lu mu fay wut. ah lu fi dul xanaa Macky Sall moom réew bi dafa ñëw ànd seeg président wala daa ñëw pour. ruubee déedéet daa ñëw moom seet ay mbokkam moom it ñun ay mbokkam la. déedéet wuy ma loolu nag du yoon. Bougane wutul dara kees président Macky Sall mun di dem kees di seeti askan mu topp si naan day dem kees. mën naa dem feneen lu tax mënul ñëw seeti askan moom du yoon de. dama ne. Hmm. yi nekk kees yëpp. lycée yëpp. Hmm. ministre bu ci nekk bu may na la vingt ventilateur. Macky Sall lu mu fi def. Ah, Macky deful dara Thiès mënoon naa toog rek. bu demee foofa nër yi ngeen luñ ko def moo tooñ. te wax dëgg yàlla yéen a tooñ. bàyyi leen ba mu dem ngeen ñëw. ne ma ne waa nër bi yooyu ngay wax. Hmm. mais est-ce que ñun Sénégal. Hmm. un président de la République doit se déplacer avec des nervis. Hmm. ana gendarmerie. non sabotekat yi gendarmerie mënu leen a def yenn yi. dama ne ñun on respecte notre gendarmerie. on respecte am na solo mais man du ma man nerf bi taxaw di ma dóor ku ma dóor ma fay man. ku la dóor nga fay loolu la son yi bu Diop waxoon ak Bàcc Masamba mais Ousseynou. waaw li ñu tëjee ndax Bougane am na fitu laaj mairie bu Dakar wala mairie bu Kees bu Ndar. Bougane. non moom nee nag bëggul nekk maire. <laughs> lu tax nekk maire. maire moom ñu ko ñemee laaj bëriwut ma. waaw maire yi nag fii la waaye war takk seen di jéem a laaj mairie bu wala mairie bu feneen mais réew mi wuti ko te laajoo mairie moom dafa xaw a jafe. waa nee mënul yor liggéeyam Ndakaaru. waaw. waaye nekk maire Saint-Louis. waaw di jugee Saint-Louis di fanaani Ndakaaru. Hmm, moom nee na mairie ku gañe mairie. Hmm. ca biir mairie ba ca biir ville ba nga war a fanaan. kon mu laaj mairie bu dakaar ah. mairie bu Dakar ah? munu koo laaj. Ah, ñu ngi cay waxtaan. <laughs> ñu ngi cay waxtaan. am na solo Ousseynou Fall. man daal gëm naa ni. Hmm. muy Ousmane Sonko. muy Bougane. muy Barthélémy Dias. muy ñi nga xamante ne jaayuñu seen ngor. bu leen jàppalee. mën nañoo defar réew mi. am na solo. kon cant ak ngërëm ñeel na la. jërëjëf. jaajëfate mu ngi noonu moom lañ daraloon bu di Ousseynou Fall waxtaan ni am na solo kon ku demee ni président Macky Sall ma nga wutali kees ak mburoog soow waaye ku demee ni Bougane Gueye ma nga sa topp pour tibb tànk mel na ne nag lu mel noonu mooy waral nervi yi di am. nañ waxanteeg dëgg rek réew mi ñoo ko bokk il faut ñuy waxanteeg dëgg comme que ànd ak président Macky Sall na bàyyi bu président Macky ñëw wax la muy wax ba dem moom mu ñëw wax la muy wax moom it askan wi ñu te yeewu nañ nit ñëpp yeewu. daas ni carte dante ba mu bees tàq ñu dem wote ji waaye nag président Macky Sall awee nii nga aw nii buñ tasee rek xeex mën naa am te boobaa problème mën naa am nañu jeex jàmm te wër jàmm jàmm ji nag munta am fu dëgg amul na dëgg am nañ wax dëgg te yàlla tax kon bugaan toogal ba président noppi nga doog a dem Ousseynou jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi lii leen leen andiloon ba suba incha allah.